Exprimez-vous asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen ndajeem xibaar li ci penc mi ak man ci ànd bi Papis jaw maa ngi leen nuyu Papis. maa ngi lay fay Assane di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ci télé Futur Média. xibaar yi bokk na ci cooxeegu lekkool bu Sénégal nar a dugg ay bés yu nu dëgmal waa CUSEMS SAEMS dàqunu benn yoon ci xeex bi ndax nguur gi nu gis ne day dugal guddal jël ci seen i jàmbar yu nu fësal boobaag léegi jamono yu élèves yu euh, école polytechnique bu Thiès xëy si Ndakaaru tey ji di fësal ñoom it ay jàmbat ndax ñetti weer a gile mënunoo jàng ndax i professeur yu grève foofee fa ñoom ñu lànk doon ñi loru ci euh, jàmbati yooyu professeur ci diwaanu Sédhiou naka noonu ay grève ndax mankum professeur fu ci mel di Goudomp leneen ci xibaar ñeel wàllu jàmm jàmm ngir Sénégal rawat na élection yu ñu dëgmal imam ulema yi njaxta lay bés bi def ci woote ngir rek askan wi ñu ne lànk ñii di way politique yi jañax leen ci fitna boo euh, boomug ndey soxna loo ca Parcelles Assainies Kër Massar gendarmerie def na jéego am solo ci enquête bi ndax juróom ñu nu ñoo def jéye ji ñu ngi jamono yi ci loxol gendarme gendarmerie defere nañ leen ajjuma ji nu génn tàggat yaram ak Papis jaw dinañ ànd ak moom it ci actualité bi moom Papis wàllu sport bokk na ci gaynde yeeg waajalu kaan bi suñu match bu mujj ci wàllu xarito ak ndam lañ ci am suñu digg Kenya benn ci dara ndajeem tey mi nag ci wàllu gëstu ñu ngi ko jagleel CNRA gi xëyoonam ndaje diggam ak responsable presse bu Sénégal ñu ngi waajal élection yi ak li ci war nekk tëddeeg njaaxaanaay ak tolloole na ko noonu presse bi ñeel bépp candidat foofee am nañu ci gan kenn ci kilifa CNRA yi Modou Ngom actualité bi la ñuy dooree ak Papis bi bisimilah Papis. jërëjëf Hadj euh, Assane ni nga ko waxee ñu tàmbali kook yëngu-yëngu yi yoot école Sénégal euh, muy nag loo xamante ni euh, ci diir bu gàtt la fii ak ay bés bi ñu jëm bu fekkee ne amul saafara bu ñu nemmeeku ci wàllu grève ak débrayage ci la ñu fas a jëm muy nag waa CUSEMS ak waa SAEMS. Euh, di wax it ne amul benn xeetu xeetu xeex boo xamante ne dañu ko euh, moytu ñu nag euh, xamal ko ci ab waxtaan bu ñu amal tey jàkkaarlu ak wéy taskatu xibaar yi ñu ànd déglu si Ramatoulaye Lamine Dianté moom mooy wax ci micro di Saprera. dañoo dakk njàng mi ak njàngale mi depuis 9 ñu woote ay assemblée assemblée générale ci daare diggu doom yépp ci biir Sénégal. pour que nit ñi également mën a euh, partager information yi te wax léegi ban taxawaay la syndicat bi war a am ci situation bi décret yi ñu signé nguur gi respecté wu ko appliqué wu ko décret yi ñu signé ba léegi defu ci dara donc dafa nekk di def benn euh, jeu euh, te ànd ci ak FASTEF leneen li mooy dañoo déposé woon plateforme revendicative ci table nguur gi depuis le 18 avril 2009 ba léegi nguur gi waxu ci dara dañu bëggoon également que nguur gi ubbi ay waxtaan ci loolu parce que ñi eh, poñ ñu fa nekk véritablement dina permettre école publique euh, gën a jëm kanam école publique day dem ci ay jafe-jafe ci fan yu néew parce que déjà semaine prochaine am na ay composition premier semestre ci yeneen écoles yi mun nañ dem dans le sens de bloquer ces évaluations pour que évaluation ba ñu am parce que mun nañ def ay grève ay débrayage mais également mun nañ def rétention des notes pour que nguur gi respecter euh, kaddu boo xam ne jox nañ ko euh, depuis mu nekkoon euh, Ramadou lamin jante yoroon baatu SAEMS ak CUSEMS euh, ñu nag des ci wàllu njàngale bi wax ci li nga xamante ni mooy euh, école polytechnique bu Thiès njàngaan yi wàcc si tey jii ci Ndakaaru pour fësal li nga xamante ni moom la ñuy dund ca école ba wàllu grève bu toll si ñetti weer lu toll si ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci élèves ñoo ne. Euh, du ñu nangu benn yoon ñu fàtte leen ci li nga xamante ni moom la ñuy dund jamono ji euh, ci la ñuy ànd déglu président bureau ba euh, ñu koy wax Medoune Fall mu ci wax ci mun a Ndiaye ak Yaya Diallo. technique de Thiès bëri na problème dem nañ mouvement depuis trois mois suñu enseignants yi pour réclamer ñu organiser élection directeur bi ministre bi nag boobu ba léegi defu si dara ñun dem nañ mouvement lëndi ndaxte. mënatuñu continuer nekk victime problème yooyu yoo xam ni concerné wuñu benn yoon te fi nekk ñëpp ay doomu jàmbur lañ mënoon nañu choisir dem jàngee faneen parce que ñëpp ay ñoo xam ni ay mention yu baax lañu nañ jàngee faneen dañoo choisir ñëw école polytechnique de Thiès te mérité wuñu ñi leen di jël en conseil d'administration instant yi ñun ñoo ñëw Dakar pour wax mais yeneen beneen partie étudiants yi ñoo ngi actuellement école bloqué nañu lépp ñoo ngi ci bunt bi dara du jàll dara du génn dara du dugg parce que jànguñu te ñun ñoo tax ñi def fa école bi bu fekkante su ñun fonctionné wun dara warul fonctionné ulema yi ak euh, imaam yi di artu mépp doomu Sénégal euh, bu nekk kilifa rawatina ñi nga xamante ni ñoo sóobu euh, ci élection présidentielle yi ñu jëm ci atub 2012 ak it ñi nga xamante ni ñoom la ay nit topp moo ñuy wax ay porteur de voix it ñoom nag ñu xamle ceeb jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ne ñëpp dañoo war a lalu ci jàmm Euh, te bu benn euh, bu kenn réeree mbir ne jàmm ci la lépp xeej na ñëpp def mbir yi euh, ci kaw jàmm sori fitna bi nga xamante ni moom la ñuy ragal moo xam balaa élection yi ci élection yi ak it bu ñu génnee ci élection yi ñu nag ànd déglu ci imam Omar Diène nekk secrétaire général lu euh, euh, euh, association des imams et oulémas du Sénégal kon muy Omar Diène secrétaire général association des imams et oulémas du Sénégal kon ñu may nee ne Moustapha Guèye la ñu bindoon ci Omar Diène benn la même kër gi la ouléma yi la ak imam yi ñu ànd ak leen ci woote bi nga xamante ni moom la ñuy woote ñu jëmale ko ci wàllu jàmm ci réew mi ci wàllu élection présidentielle ñàkk ut jàmm ñàkk dox jàmm ñàkk wax jàmm doxoo ko waxoo ko wutoo ko toog rek naan mag ñu baax a fi tëdd jàmm rekk fii xew ma ne tayal dong la. aw ay dañ koy daw fitna dañ koy daw jàmm dañ koy wut waaye toog rek naan ñu baax ñu fi tëdd jàmm rek fii xew ma ne tayal dong la. daw fitna mooy doo ko wax doo ko jëf doo xaste doo xuloo doo xeex doo yàq àll jàmbur noonu la ñuy dawee fitna yonent bi nee na bu fitna ñëwee. ah ka dox jëm ci ki taxaw a ko gën ki taxaw ki toog a ko gën ki toog kii tëdd bañ caa dem moo ko gën. bu ñu jubee jubloo élection nit ñi dañuy mel ni dañoo jógee fitna bëgg a taal safaroo fitna kon nag loolu imaam mooy toog ne leen hey wax leen jàmm te def ko bu leen yàq réew mi. voilà ñoo ko déggandoo euh, jàmm la ñuy wax ci réew mi ñu koy tëjeek euh, li nga xamante ni mooy démission maanaam tekki ndombal tànk bi nga xamante ni euh, Ngouda Fall def na ko nekkoon njiitu CENTIF moom nag Ngouda nee na daal xàmmeetul boppam ci li nga xamante ni mooy doxalinu administration fii ci réew mi ba tax mu yot démission am kilifa yi nga xamante ni ñoo ko ngànk ay Assane daañu dellu si waat euh, du ñàkk li nga xamante ni moo jëm ci xibaar boobu aju ci Ngouda Fall Kane kon nekkoon fii euh, njiitu CENTIF. Euh, CENTIF jërëjëf Papis ni nga ko waxee jamono jiite na CENTIF gannaaw si ba ñu ko fa wuutoo mu daal di dellu ci administration bi waaye daanaka yàggu fa lool ndax ni nga ko waxee bana du ñàkk ci yeneen ni jamono ñu ànd ak moom wala ci wàllu jàngat ak TFM ngir xam lu waral bag yi moom gisatul boppam ci administration bi ni nga ko waxee Papis jërëjëf université Cheikh dëkk bu Thiès naka noonu it ca Sédhiou ak yi Gréew cooxe yenn ci lycée waaye euh, université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru it naka noonu ak cooxe ndax yi professeur yu bootu ci SAES e njeextalu novembre léegi ñu ngi cib gréew étudiants yi jaaxle lool ci seen ëllëg akum njàng ñii di professeur yu SAES e it ñoom nas nañ sax ab marché fan yi di dëgmal ngir rek saafara ci tawat yi ñu jibal boobaak léegi ci gisuñu ci ay euh, saafara soxna Aminata Mbaxi Sow la ñu ci àndal ak Adama Guèye léegi mu mat weer gisul ñi koy jàngal ñoom nag dañoo bank seeni loxo loolu nag andi njàqare ak tiis ci naka la nar a jeexalee année universitaire bi nga xam ni tàmbaleegul sax. année bi tàmbalee ba tey benn leçon rek nañ fi def te leçon bi. Euh, droit civil la waaw tiit naa ne bi métti trop. tiitaange boobu nag nekku rek ci Ibnu Guèye yeneen i moroomam di wane naqar xam le ni bu grève bi yàggee ñoom rek ñoo ciy sonn. sunu avenir moo nekk en jeu kañ la ñuy commencé jàng kañ la ñuy commencé jàng bay bay dugg ci premier semestre bi bientôt ak élection présidentielle yi di yegg si di di di jub si. ci noonee ñu ngi ñaan ñi nga xam ni ñoo leen di jàngal te nekk ci grève ñu jéem a waxtaan. ñun ñoo ngi ñaan yàlla grève bi teel a jeex et tout gouvernement bi déglu seen doléance léegi ñun ñu mën si génn parce que à la ñun ñooy ñu sommes sacrifiés. mënu ma parce que xam nga SAES e dafa nekk syndicat bi nga xamante ni bii démocratie moo fay law maanaam ñiy décider mooy euh, militants yi suñu xoolee ne euh, faj nañu seen soxla mais nañu reprendre fii ak mais tant que loolu amul mënu ma wax ne fii ak fan mën nañu reprendre. ñoom nee nañu dañuy yokk seen xeex. alarba su neexee yàlla am na benn marche bu mag bu ñu fas yéene def. marche bi dafay boole ñun ñu nekk Dakar ak ñu nekk si euh, yeneen région yëpp ñu ñaxtu nit ñi ngir ñi gën a xam euh, kii xeex bi. grève ñii di syndicat autonome enseignant du supérieur yokk ko ci résultat yi nga xam ne ñu ngi yéex a génn ci faculté des lettres nar na dugalaat université Cheikh Anta Diop de Dakar ci ambiance bu neexul loolu lépp nag ñi nga xam ni ñooy étudiants yi ñoo ciy gën a perte. Aminata yi saw ñu koy gërëm ñu ngi waa waajali élection Sénégal ku nekk wat nag faw xob ba nga am carte ba ngir mën a def sa tànneef ñenn ci way wati Sénégal ñu jotagul seen i carte mën nañ ko def ci ñi nga xamante ni ñooy bindu bees yi waaye la ci yéeme mooy wàllu jëli gi nit ñi boole gunu ca buuxante noone misaal gi ca Médina ci centre bu nekk fii ci Ndakaaru foofu it am na fa ñu ñibbiwaat ak loxo yi neen ndax dañoo rejeté dàq seen i càkkutéef am ñu nu sàkku ci ñoom ñu dellu siwaat leeral it ci reportage bu Fatmata Ba Alié Mbaye bu responsable commission séddaleem ci Médina ca mairie bu Médina téeméer yoo jël la xaaj ba kott ñoo retiré gum seeni carte électeur révision 2011 jotoon nañ 2656 cartes mais fu mu nekk 1300 lañ si joxe kon nag des na lu bari te élection yi li si des bariwul am na tamit carte yoo xam ne si révision 2010 la woon carte yooyu genn wàll gi mu ngi fi am na carte yoo xam ne tamit si refonte 2006 la woon carte yooyu tamit ñu ngi fi seen borom jël si guñ lu si bari daal carte yaa ngi fi. donte ñenn ñaa ngi jot seeni carte lim bu takku ñoo nga fay ñëw waaye ay jafe-jafe tax na ba mënuñu jot ci seeni carte jot naa ko waaw jot naa ko si jàmm ak salaam te loolu laa bëgg euh, kii bi bu jotee ñu dem voté si jàmm ak salaam ku gañe nga xam ne gañe na. damaa ñëwoon pour jël si sama carte électeur fii ci mairie Médina parce que fii laa defee woon sama inscription pour jël sama carte électeur bi ma ñëwee gis naa commission bi nee nañ naa dem euh, commune bu Mbao pour ma jëlee fa sama carte plus mënoon na ma ko wax bu yaay parce que dama jaabante ba son tey dama sacrifié sama cours ma cours damaa obliger bàyyi sama cours pour ñëw jël sama carte électeur parce que pour man sama acte la sama waref bu ma war a def na la quoi. ci mbir moomu njiitu commission bi séddale carte yi indi ci ay leeral. ci bari mooy kii bi gis nga lépp ay ay rejet la ndax ñooñu ñu si bari dañuy ñëw si commission yi boo ñëwee dañu lay laaj ndax mos nga wote da nga naan alors que même bu fekkee ne mos nga retiré eh, retiré sa carte te voté woo aussi dañu lay considere comme votant mais boo new boo nee déedéet dañuy def une nouvelle eh, dañu def inscription bu bees da ngay da ngay binduwaat bindu bu bees alors ko du noonu boo sa carte bu réeré da ngay dem commissariat police wala brigade gendarmerie ñu defar certificat de déclaration de perte de carte d'électeur certificat déclaration de perte de carte d'électeur boobu moom ngay indi si kii bi si commission yi ñu defal euh, duplicat mais nag ñoom duñu ko def. ay bés rek des ci wote présidentielle 2012 te boo moytuwul ñu bari ci sénégalais yi naruñu voté ndaxte mënuñu jot ci seeni carte électeur jërëjëf Fatmata Ba wàllu ko yoon ak gendarmerie Kër Massar bu Parcelles Assainies bi teg loxo juróom ñu nu njort seen ak bokk ci jëye jëfoon ñaar fukki fan ci weeru décembre 2011 di soxna soo xamante ni euh, dañu ko fa boom yegg ci kawam day soxna loo euh, loolee nag kon di jéego yu gendarmerie def ci enquête bi ñooñee di suspect ñu nu njort kon seen bokk ci jëye ji ñu ngi ci loxol yoon ajjuma ak léegi euh, borom kër yi ki nu faatoon yooyu jamono nag rafetlu ko waaye di ñaawlu ñàkkum karange ca gox ba di Parcelles Assainies Kër Massar lu ñàkk gannaaw xibaari tàggat yaram yi ka nu fa yebaloon di Daniel Diouf teew ñu dégtal leen tolluwaayu enquête bi ñeel boom nga gëwoon foofee ca Parcelles Assainies Kër Massar. wàllu sport ñu ànd ak Papis Diaw. Euh, euh, nag li ci fës mooy waajal bi Sénégal di waajal Coupe d'Afrique des Nations amal match tàggatoom bu mujj ci Ndakaaru daan si nag euh, équipe bu Kenya. ci benn bal ci dara match bi am fii ci stade Léopold Sédar Senghor nu nag euh, ànd ci njàngatu match bi ak seen taxawaay ñoom gaynde yi déglu ci euh, Omar Daf. équipe bu baax am équipe bu baax ça veut pas dire dañuy dem coupe d'Afrique jël euh, coupe d'Afrique rek jël coupe bi ñëwaat donc. lu mel ni Kenya wala Soudan woon nañu ni mbir yi du yomb donc nañu jàppoo nekk benn Euh, continuer xeex comme ni ñu ko defee tey bu match yi méttee ñu jéem ko gérer def ndànk et puis jéem a gagné 1-0 euh, match moom li ñuy laaj mooy gagné ko donc quelle que soit la manière le plus important mooy gagné. bu ñu yàqamti jeu à chaque fois dañuy perte bal bi donc euh, au niveau mooy tamit adapté wu donc xam nañu terrain bi bu ñu yàqamte à chaque fois day am ay déchets donc moo tax à la fin ñu jéem a def ndànk pour naxanteeg ñoom jéem a gagné. waaw ñaari match yi daf ñuy jàngal si li ñu xaar si Coupe d'Afrique parce que c'est vrai que sénégalais yi am nañu yaakaar bu bëri si ñun ñun tam lépp lu ñu mën dinañ ko def mais ñaari match yi daf ñuy won ni Coupe d'Afrique du question de am nga équipe bu baax rek da ngay dem gagné ñëwaat donc euh, voilà nañu redoubler d'effort xam ni li ñu fay xaar dina métti mais bu ñu góorgóorloo dina baax ñu desandi ci match boobu nag euh, di wax njàngatu bi nga xamante ni moo jóge ci Amara Traoré di entraîneur bi gannaaw bu ñu amalee euh, ñaari match tàggatoo yooyu la digganteem ak somali ak it euh, Kenya moom entraîneur équipe bu Sénégal ne nag liggéey bi des na rawatina ci wàllu but maanaam travail devant les buts moom Amara Traoré la ñuy ànd ba léegi déglu ko. marché yi am na lu mu wane am na lu mu wane donc dañ gën a am ay certitudes yoo xam ni léegi maintenant euh, je pense que fi nekk marché samedi bi donc nañu gën a defarwaat euh, euh, pour pour commencer tournoi bi tournoi bi nag bu ñu koy commencé xam nga tournoi booy commencé boo teelee pare baaxul donc dañuy jéem a pare euh, gérer trois premiers matchs yi ba qualifié léegi nag pour match coupe bi commencé nag là vraiment on va vraiment dérouler comme à l'image des meilleures coupes du monde Espagne gis ngeen euh, compétition yu mag yi muy def yëpp day daan teel pare génn tournoi bi mais bi ñu ko bi ko teel nandee bi ñu defee ndànk-ndànk ci planification bi ngeen li mu jox daal match boobu sax euh, des tuuti du woon am ndax ay jafe-jafe yu ndaw yu ci laxasu woon rawatina Euh, wàllu prime yi nga xamante ni joueurs yu Kenya yi laajoon nañ ko seen i dirigeant ba tax fédération sénégalaise bu football euh, moom moo euh, lamb poos maanaam dugg ci mbir mi pour sauver match bi leeral yi nag di tukkee sax si njiitu fédération bi di maître Augustin Senghor. maanaam tardé biñ ci am li ko indi mooy le footballeur Kenya yi biñ ñëwee ba fii dañ ne seen dirigeant yi tant que joxuñ leen seen prime bi ñu dugg ci terrain bi loolu moo tax ñu doon waxtaan ak ñoom mujj gi sax euh, ñun seen partie sénégalaise bi moo jël engagement pour assurer leen vingt mille dollars yi ñu doon laaj pour ñu mun jouer match bi defe naa loolu euh, doy na waa torop mais mooy wane rek footballu Afrique fu mu toll euh, rafetul si africain rafetul si sénégalais mais rafetul surtout si Kenya yi parce que li mooy wane ne pour ñu dab yeneen continent yi comme ay Europe ay Asie dinañ dese lu bare xaw na teel tuuti pour situer responsabilité yi. li may wax ak ñun mooy ci li ñu digaale woon ak euh, parti Keñaan bi def nañu li ñu waroon def ba dépassé ko. voilà mu nekkoon Augustin Senghor doon ñëw ci jafe-jafe yi lal woon ci marché Sénégal Kenya boobu finalement mu na am comme ni ngeen ko xamee ñu koy tëjee ak euh, sargal foot euh, di couronner les maire en football tàmbali nañ si Stéphane Badji di moom mu ni jox meilleur joueur Ligue 1 ci wàllu dirigeant yi ci troisième édition boobule Sayer Seck moom moo jël meilleur dirigeant Sayer bu Jambar Euh, ci wàllu entraîneur yi nag euh, Alfousseyni Badji euh, donc Assane moom la ñu jox raaya meilleur entraîneur ci li nga xamante ni moom mooy Ligue 1 nekk ci troisième saison bi ñu amal ci ay bés bi fii ci Ndakaaru Papis maa ngi lay gërëm ñu daal di àndaat ak mbokk yi ca Kër Massar Parcelles seeni gox boobee 20 euh, décembre 2011 ñu boomoon fa euh, soxna su naan Ndeye Soxna Lo euh, ña ko def nag wala ñenn njort ne ñoo ne ci gannaaw jiyee ji moom ci enquête ab gendarmerie teg nañ leen loxo juróom ci lañu toll ba dañ leen jàllale ajjuma ji nu génn borom këram moom dem si yàlla si rafetlu enquête beeg jéego yi ñaaw lu it ñàkkum kaaraange ca seen gox boobu di Parcelles seeni Kër Massar Daniel Diouf ak lañu ci àndal ak Demba Ndaw l'enquête bi nekkoon ci loxo gendarmerie bu Kër Massar mot na ba ñu jébbal ñeenti xale yu góor ak benn bu jigéen ci loxo àttekat bi kii di band Diop di borom këru Ndey Soxna Lo rafetlu na li ni mel. liñ ciy def daal moom sant commissariat di gendarmerie bi moom taxawaayam ak matale na rafet na moom daal loolu lañ ci amagun waaye fii mu ne amagun ci renseignement bu gën a bu wóor a wóor nu bu baax a baax baax ndax seen taxawaay. ñaan yàlla jëmee ko kanam ba lépp ñàkkum kaaraange gi mooy li ñëpp di lam-lamee foofee ca Kër Massar. am li may wax ci affaire sécurité rek laa koy jëme li may ñaan gouvernement bi muy sécurité ndax Pikine ak li am amul sécurité. maag li may ñemeetu fee dem jàkka timis maa ngi fee dem jàkka fajar jigéen ñemeetu fee génn fajar sécurité lañ bëgg ñu dimbali ci xale bi li ko rey mooy ñàkk sécurité. ñàkkum jumtukaayu takk der yi làmp yi tàkkatul ak kër yi ñuy tabax te àgguñu li la yépp doon li askanu dëkkuwaay ba di ñaawlu lëndmaa gi ñàkk am courant daal moo tax parce que lamp bi jàkkaloo ci kër gi bu ñu bu ñu mën a may lumière dafa yàqu kër gi yii nañ ko dindi fii loolu bokk na ci sécurité bi dañ koy tabax wàcc ko fii te kenn du ko kii kenn du ko di ko tëj nga xam nga bu ñu tëjoon buntu bi tam fenêtre yi yëpp comme ni kii def nii xam nga kii tabax na ba pare tabax bi yàggul waaye tëj na yëpp kenn mënu faa dugg waaye bi ñu bàyyi deux portes presque ku ñëw rek dugg ndey soxna loo dem na waa këram weet lool waaye gën a ti weet néeg bi mu doon fanaan ah euh, jërëjëf Daniel ñu yegg seeg sunu gan gi euh, Vieux Diouf xam naa nag faw nga may gan gi toog Vieux caméra bi du loo gis rek wane ko maa ngi woon ci waxtaan wi Papis Diaw Papis comme suñu jigéen tey ngóone daf ñu daw congé bi li ma ci jaaxal responsable bi gunu ko lu waral daw xel yu métti jëm ci ngóone <laughs> jërëjëf Papis ñu ngi ak gan gi Modou Ngom bu CNRA sëñ bi Ngom ñu ngi lay gërëm bu baax ci teewaay gi maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi CNRA ah, moo yor wàllu yoonal gi ñeel presse beeg euh, média yi ci Sénégal tey da ngeen doon daje ak kilifa presse boobee ngir waajal élection yi euh, ci wàllu kon yemale geeg toll loolu la Guinée xaar ci ñoom ak yoonal gi di wàllu kon lépp luy éthique ci liggéey bi euh, ñuy ñëw ci waxtaan wi dañuy dalal Marie Christine Mendy mi nga xamante ni mu ngi woon ci ndaje maak Jafara ay fan des laata ñuy dugg ci campagne électorale yu élection présidentielle yi sénéra jël ndogal di aaye bépp propagande mën a jéng ci wàllu traitement information bu ajog bépp candidat loolu tax ba kër yéenekaay yi war a charte gi sénéra tëral jëm si lu ñuy bind lu ñuy déglu ak lu ñuy wone si télévision yi yépp conseil national de régulation de l'audiovisuel moo ko war a seet segg ko settantal ko pour que yenn jafe-jafe yi bañ a am si diggante nit ñi parce que soo jëlee kenn par rapport ak keneen ko privilégié ko wala nga jënd sa rajo di wax la la neex wala kii yooyu yëpp dañ siy taxaw tem charte yooyu nag jural na tiitaange yenn sa njiitu yéenekaay yi ndaxte yoruñu jumtukaay yi tax ñu war a mën a yemale ñëpp. ñoom seen bopp xam nañ ni que euh, décision yi ñu jël loi ñu mettre en avant euh, ñoom seen bopp xam nañ ni que dina jafe ñëpp respecté ko respecté ko normalement. yónnee sa benn caméraman yónnee sa benn reporter yónnee preneur de son boo ko mënee yónnee benn chauffeur déjà ñeenti nit la. ñeenti nit yooyu seen prise en charge boo ko calculer par bés dina takku nga multiplier ko par vingt et un wala vingt nombre de jours de campagne bi lu takkoo takku lay nekk lu bokk la euh, essence bi dara. pour yamale ñëpp foo nga fekk ñëpp fekkee la ñëpp di def nekk fu nekk ak nit ña fay dem te loolu ay moyen la. waroon nañ ko assouplir ni ah yamale bi kat na nekk ni ku ci wax loo xam ne soxal na nit ñi ñu dégg ko koo xam ne nag waxul dara. wala la mu wax soxalul kenn ah kooku tamit ni journal wala télévision wala rajo di nga ko wax waxul dara wande waxal ni waxul dara day daal di metti yenn programme yi nga xam ne ñun am nañu ko nga laaj ko sànq eh, te ñu mën ko jël ñoom dañ leen di bàyyi ñu jël ko librement eh, vraiment te lu ñu duñ leen ci topp dara ci benn ci wàllu xaalis rek muy lu gratuit. CNRA nag fas na yéene teg ay daan képp ko respecté wul la loi boobu. su jaree tam ñu fëgg si taabal ji tëj dinañ tëj. mën nañ tëj rajo mën nañ suspendre rajo mën nañu ko amende ba 10 million te su tardé suñ na nee tey war nga fay suba 10 million bés boo tëbee te fayuloo ko di mën nañ la defal contrainte lu ñuy wax ni bés mu ne nga dolli si ñaar fukki junni wala téeméeri junni loolu mais ma préciser ko du ñun ngeen koy fay kër yéenekaay yi nag fas yéene nañu def seen laay kàttan ngir bañ a wàcc bile charte léegi nag laaj bi mooy ndax dinañu ko def ni ko CNRA diglee Marie-Christine Mendy ñu koy gërëm mbokk yi egg seeg yéen ci sunu gan Modou Ngom porte-parole la ci CNRA sëñ bi Ngom moo dellu nuyu la laaj bu njëkk bi mooy rek fan yi ñu ngi woon ci période pré-campagne laata campagne bi door nañ ci war a tolloo li nit ñi pré-campagne googee euh, ban évaluation njàngat ngeen ci def est-ce que presse bi wàccoo nan ak li ngeen bëggoon ci ñoom. Euh, waaw ma remercier sëñ Assane en tout pré-campagne bi effectivement depuis le 6 janvier démarré na euh, amuñu ci jusqu'à présent jafe-jafe majeur yu jigi dayo euh, am na juste par ci par la ay euh, ñoo xam ne dañuy def naka si du noonu euh, jotuñu sax bind pour mise en demeure dañu leen di woote rek par comme ñun xamante nañ suñ biir dañuy woote rek signalé ne ah am na lu leen rëcc nii par exemple am na télévision boo xam ne dafa passé par exemple meeting yi doon am avant pré-campagne mu passé ko pendant la période de pré-campagne parce que dafa doon def dañ doon dañ doon def comment dire débat pour illustrer mais déjà rien que pour illustration yi coup de au CNRA en pagaille ñu ngi woote alors ñu ngi wane campagne ñu tegu pourquoi pas suñu campagne et cetera xam nga yéen du ngeen xam pression yi ñuy subir et c'est des pressions terribles mais à chaque fois dañuy woote bu ñuy wootee rek kooku ah nous on a defuñ ci woon attention mais dañ koy dindi. pression yi mooy parti yi ñoom ñooy. bien sûr ah, ah. bien ñan ñoo gën a def pression wala ñan ñoo gën a def ay kalaame waa opposition bi la xam naa ni. Hmm, euh. ak it ban ban këru presse lañ lañ gën a ŋàññi. xam nga bëgguma comme comme ñun binduñu euh, dénoncé dañuy waxtaan ak ñoom jubo bëgguma sax citer vraiment média yi noonu bon am na euh, aussi ñoo xam ne par téléphone xam nga parti politique mën nañu saisir par écrit bind mais jusqu'à présent kenn bindu ñoom itam dañuy dañuy téléphoné rek comme xamante nañ dañuy téléphoné ah am na ñoo xam ne oh, léegi nag bu naroon débordé la ñuy soog a bu naroon débordé la ñuy soog a bind wala ñoom ñu benn ñu et cetera mais pour dire ko ba léegi daal Euh, on touche du bois vraiment dara ji kiigu ci mais li mu bëggoon wax profito ne xam xam nga période campagne ak pré campagne euh, da di des moments yu sensibles parce que bon dafay am espèce u tension parce que xam nga dafa am ay nit ñoo xam ne dañu bëgg a diriger seen réew investir ci xaalis bu bëri investir ci ay moyens daf yu nekk donc dañuy xool bu baax est-ce que nit ñi nekkul di leen bëgg a bëgg a privilégier kenn par rapport a ñoom loolu day indi tension boo xam moo tax exceptionnellement ci période pré-campagne ak campagne mu am disposition yi nga xam ne ëmb xaw xawul neex journaliste yi ah. mais nag kooku xam nga euh, euh, classe politique yi ñoom ñoo daje depuis 92 def benn code consensuel tënk ko ci benn euh, document ñu voté ko assemblée ne on fait que duñu dañuy dem rek xool rappeler yi nga xam ne mbi lii la code électoral bi wax rappelé ko rek quoi mais vraiment c'est une période assez spéciale mm. parce que ni ma la ko waxee rek ñu def am ñoo xam ne aussi dañ investir def lu nekk du mm. ñu bëgg nag ñu ñu favoriser ñi te comme ni ma koy waxee souvent euh, mu ngi mel ni campagne bi moom mooy top départ bi mooy le 4 euh, le 4 février mm. mu ngi mel ni nga def say kii ci starting box sportif bi xam na <laughs> ne leen tant que joxuma top part bu kenn dem mu am nag ñuy yoleeku <laughs> xam nga bu ñu yolee ko ñu ngi def faux départ uh-huh. boobaa ñeneen ñi nga xam ne demuñu mais gis nga un artiste comme euh, Bolton hmm. bien que c'est un truc ba mu ba mu xaw yolee ko perdre na woon médaille am donc ñii aussi noonu rek la boo koy def image loolu kese du ah. question kii mais c'est pour que doomi Sénégal yi nga xam ñoom ñëpp engagé nañ ci hmm. campagne bi kenn bañ a favoriser kenn. ñëpp yam wërsëg. Euh, ñaari question la am benn bi d'abord euh, lu gën a pratique xëy na mooy euh, lan la ñuy jël ci wàllu charte. Euh, ci ndaje bi wala ci fan yi loo xamante ni lu bees la lu fës la te nit lu ñu war a mën a bàyyi xel la euh, par rapport ak euh, tele yi rajo yi ak journaux yi. waaw xam nga code bi moom yàgg na dafay évoluer rek mais fondamentalement changé wul li ci changé nii daal ci couverture campagne mooy simplement dañu jël en compte les les nouveaux supports la presse en ligne. ak tous les autres supports xam nga xam nga en 92 il n'était pas question di ñu yax ay wax internet bon bii yoon comme euh, tous le mois weeru août bi passé yëpp dañ euh, dafa amoon ay ay ay travaux pour pour réviser xamuñ ko pour euh, seetaat code électoral bi ci lañ ko dugalee parce que CNRA pendant un mois participé na ci juste côté campagne bi quoi li ci bees daal trop trop mooy loolu mooy nouveau média yi ci prenant kon mooy la presse en ligne. waaw bu beneen laaj mooy euh, xam nañ ne ñu ngi jëm ci ñu ngi ci période pré campagne bi euh, télévision mooy médium bi gën a euh, ëpp impact en tout cas parce que audio ensuite visuel. Mm. si ñi nga xamante ni ñoo seq xeex bi am na si ñoo xamante ni dañoo bànqaasoo si ay ay télévision mm. ñenn ñi njort it ne par exemple RTS di yaayu télé yi maanaam si wàllu ancienneté. Mm. tamit am na ñu fa am seen loxo mën leen defloo li nga xamante ni. ni moom moo nekk seen intérêt euh, yéen ban taxawaay ngeen ci am te it euh, yan euh, prévision ngeen def ci ci problème boobu nga xam ne xëy na reposé wu ci ci campagne bi loolu sax on en a débattre nañ ci tey c'est d'abord pour commencer ci privé yi xam nga am na ay rajo privé yoo xam ne dafa am ay homme politique ñoo leen moom am ay journaux privé yoo xam ne ay homme politique ñoom dañ leen rappeler da leen même bu dee yaa moom sa journal même bu dee yaa moom sa rajo pendant cette d'abord même en dehors des campagnes électorales warul warul warul doon monocolore da nga war di associer ñëpp rawatina nag campagne électorale campagne électorale on dañu on est regardant et obligé vraiment nga nga doon ndey ji cheikh sinon dañuy obligé utiliser sanction yi fi présidente wax léegi mm-hmm. sanction yi nga xam ne aussi de ñun ñoo ko def loi bi moo ko tëral ñu koy rappelé te j'avoue euh, ma wax ne balaa ñuy def ñu d'abord dañuy téléphoné waxtaan ak yu ensuite bu fekkee dëgër dañu def euh, mise en demeure mm-hmm. fekkee yooyu yëpp kii la ñuy soog a envisage sanction la preuve dañu naan scénario day wax rek du sanctionné parce que aussi ñun xam nañ on de des a ak ay magistrats <coughs> yaa ah moom sa rajo wala <coughs> moom say journal am sañ-sañ def lu la neex surtout ci période bi parce que li ma la wax mooy euh, euh, sénégalais ay doomi Sénégal yu am aspiration légitime diriger réew mi kenn amul droit créer ci problème te nag pré campagne ak campagne bu baaxul rek poste que élection bi day poser problème te kenn kenn souhaitu loolu pour RTS aussi daawuma euh, kii boobu RTS aussi c'est la même chose mm. euh, seetaan ngeen par je donne un exemple boo xam ne ma ñun dañ ci dañ ci féliciter RTS contrairement à ce que les gens pensent euh, bi quand bi président bi demee Matam gisul xam nga amoon na fa meeting am na accueil populaire mais gisuleen la président bi rek moo nekk ci tali bi di dox comme comme comme extraterrestre comme si on peut dire mm-hmm. donc ça aussi c'était un effort de la RTS mm-hmm. on félicite donc aujourd'hui mu du amul RTS amul public amul privé franchement dañu bëgg Euh, par exemple xam nga ñëpp a ngi naan euh, di ñaan pour jàmm am mm-hmm. safaan bu naroon amee it day ku nekk dafa war taxaw organe bu nekk ne ça ne passera pas par moi du ci du ci man lay jóge bu ko ñëpp waxee rek problème jàmm jàmm jërëjëf jërëjëf Modou Ngom ñu ngi lay gërëm di la jox rendez-vous ci français bi 20 heures mbokk yi ñu ngi leen di gërëm Modou Ngom la woon ak ñun mooy porte parole bu CNRA ci kanam tuuti incha allah 20 heures incontournable Mamadou Ibra Kane Papis maa ngi lay gërëm jërëjëf Assane ñu fanaan jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média